بسم الله الرحمن الرحيم يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وظننتم أن المدافع عندنا والكل منكم زوقلا ويحاسد ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد وهب يا رزاق يا ملكي لك توهب يا وسطني أنا دايخي أجلا عجلا بالبشر محمد حتى أقيم الدين دهر كنا أسير جوعي توبا وحميني وقني أجر وراه والتدي بسما إسكان لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك لرب مشكور أي سلم سمن محمد xadim asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi siyaare ñëpp ñu ngi siyaare ñëpp ci bis bis bu tëdd bi yor yor gii nga xam ne ji tusubaar ji jëm takkusaan ja ca ca jeewal mooy dëgg dëgg magal gi defal taw peex ci liggéeyu sëñ Bàmba bi defal ñu ko ci nun nun ñëpp nuñ xam naa saam li si war a jëkk a waxit mooy magal gi kon mi ngi bëgg a jeex timis si tey ji ji ni ko suñu saar yi waxe woon ci lay jeex timis jotee moom ku ne mën ngaa dem dem ci sa yitte ku jóge woon barab sàngam ne dangaa bëgg a magal yi bari timis la ci ba nga toog magal ga jeex na déwéniti xanaa màggal leen wane it suñu saali waxoon na ko tax si mu bi sunnati la wax waaw mag màggal ko ci lu sunna daganal boo ko defee yàqu dunaa lil jannati su su boobaa loola ma nga cee ma àjjana xaw na kon loolu kon sunna sunna sunna jàng bu ab jàng bu ndaw buy ànd ki góor ak yëpp loolu moom du sunna loola sax bu doon daa tukki moom képp sax te àndut ak maxaram àndut koo xam ne araam na ko kooka tukki ba sax dafa xaraam jaxasoo gi lépp kon moom lislaam xamu ko suñu doo xamu ko kon màggal gi mays na ci jële ay ay ay ponk yoo xam ne nit mën na koo jëriñoo ba déw niti xanaa da ci jëkk jëkk yi muy tawxiid ji sëñ Tuubaa tawxiid xam nga sëñ daam abdourahman loo xalisalaw sirrahu sëñ Tuubaa di di laaj mag ñi ba xam day dem jeewalam day toog sëñ daam da koo tontu tontu loo xam ne tawxiid la ah ginnaaw da ngay wax ak sa sa borom kay bul topp waxi jaam yi ginnaaw da ngaa wax ne yow sa borom moo mooy wax ak yow ah yaa jël engagement boobu kon yow be boo nga def li la sa borom digal am solo su su sañ daam kon kon Sëñ Tuubaa kon xam na ne ndigalul borom ci lay dox amatul lenn lu muy lu muy ci xegal imshi laa taxshal xarar saa salaam wax na ko kon moom léegi moom soobu na tawxiid jooju fan yi dama dañ maa woon ab vidéo boo xam ne kilifa kilifa nag mooy rek kilifa rek ko sëñ sëñ sëñ Abdul Ahad nee woon na radiyallaahu sirrahu nee woon na képp koo xam ne boo waxee mbooloo mbooloo déglu la ma rasul nga ci ca ñooña yàlla na ko xam bay wax lu leen di jëriñ te gis naa fan yi koo xam ne def na loo xam ne dama xamut lu mu ci jublu la ci rëy la ci rëy mooy yàlla bu mu ko fas su ko fasee du du baax mukk moom ndax murit gi mënu cee bokk ba noppi te doonu ab julit lislaam la ci jiitu mooy tawxiid makka ya salaam nekk na fa ba dem madina lislaam amut tawxiid dong lee day woote ba nit ñi daal ku nangu ne yàlla am na rek daxal janna man xaala laa ilaaha illallah te gëm ko xam ne kenn du yàlla kudul allah kenn du yàlla kudul allah kenn mënut fii ak fanu jëm kudul allah lu neex ak lu naqari allah la lépp mooma ku gëm loola daxal janna wa in sana un sariqa lu mën di def rek àjjana na lay mujj suñ boobu nag li li wax ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah da da koy defee noonu ko sun mbokki nasaraan yi ñu bukk ñu diine te comme diine ko wala diine ja nga xam ne ñoom qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduun du ma jaamu li ngeen di jaamu mukk wala antum aabiduna maa a'budu xam naa ne yéen du ngeen jaamu li may jaamu mukk wala ana aabidun maa abadtum damañ fedd liwaat man du ma jaamu li ngeen di jaamu yéen naka noonu kon daal li fi nekkoon lakum diinukum ku mali diin nangul naa leen li leen ne man si am ngeen diine may ma am diine mu jeex seen sa Sëriñ Tuubaa wax ne laa udaahinu mushrikan duma bëgg nag jubóog yëfar ba nag ba ko fekk ci diineem xaliilan xabiban li man karamal jan baa li man karamal jan baa ji am na solo lool mooy kat teraanga ji ma am ki ma ko jox mooy yàlla xam naa ko man kon duma ko bokkaale dara sëñ boobu nag la ilaha illa muhammadu rasulullah noonu ko nasaraan yi defee nga xam ne trinité lay jë yàlla ñett la taala law amaa yushikoon maanaa ne ne ne ne sayyidatuna maryama jigéwut loola sayyidatuna maryama amatullaahi boobee ñu ne yaay yàlla jala ruuxul xudusu ñu ne moom moom boo ko boolee ak Isa loola mooy yàlla taxal law amay sifun loola suñ tuwaa waxoon na ne subhaana man idrakuhu tanasuru ku ne ku ne gis naa yàlla jëmmu jëmmu yàgg na saan yi benn génn daal ne wala accu nag an idraki tabasuru ku lottu ci ci gis ko ko ko kooka am na nag gisub xol sëñ boobee xisa boobu ñu wax naan sayyiduna isa alayhi salaam daa ñëwoon ci yéen jolof loolu ab loolu ay wax la maa ngi koy dégg nag waaye di maa ngi maa ngi lam-laamee di digg naa ko ci mag ñaam déet professeur Galaye Ndiaye sama ko laaj ma ne ko waaw wax nañ ko de waaye nag ba tey daal xayru mutawaatir la moom xabar bi ci man su fa ñëwee moom Seydina Isa alayhi salaam di lu may wax sëñ Tuubaa mënu caa bokk al mushrikiin yii du ñu du gaajana sëñ Tuubaa naan al waylu kullul wayli lin nasaara toskare ñeel na nasaraan yi wa maskanu maskanuhum ila jahimi sara seen kër ya sawara la sawara la la ñu mujjee dëkk loolu la suñu doon ko wax moom kon kon kon sëñ Tuubaa du du Seydina Isa alayhi salaam ca ba muy waxante ak yàlla ci ca bis ci leeroon na bi ma fi nekkee waxoon naa leen li ma wax ba ma demee nag yaa fi nekkoon yow bu la neexee mbugal leen bu la neexee jégal leen kon moom sëñ Tuubaa du. Seydina Isa du ñëw na mu xamee yàlla du ñëw ci moroomam jaamam naa ko dama bëgg ñii di bokkaale yàlla bu ëllëgee ñu mucc kooku yunu mën a moom taxawaan nanguwu ko su Seydina Isa discours bi bi muy mujjee wax ak mbooloo ma ca ci bis penc ci weddina la loo alxuraan bu xasee addu lu addoo ti ginnaaw ba bu dëppoot ak moom wérul alxuraan xaddiis ci boom bu dëpput ak alxuraan dañuy dañ koy sànni ndax addis bu kon wérul salaay salaam du wax lu lu wute alxuraan waaw sëñ sëñ Tuubaa ba muy dénk ca ca ca tey siiru xaafir fi jaw bi am ti xaadir naar ba naa ko ca mujj ga waddu maa la sunnati wal kitaab bi mooyal ci sunna ak téere bi maa dum tax ànq leen fekkee ànd ak sama xel man de fasaa jawaab bi man de loolu mooy si sama tontu sëñ boobu wax dëgg yàlla xawma am njàngam fu mu toll alluwoom xawma ko waaye loolu moom dëgganul ci tawhiid lii nag du du du feq am suñu bakk Abdourahmaan di ci wax de lii tawhiid la théologie la li lay boole ci diine ji ak li li ci génne ba ngaa bañ a julli bañ a woor bañ a natt asaka bañ a dem màkka doon ab julit waaye boo xasee génn ci cadre tawxiid dutu ab jurit bay bay doon murit nag ci wàllu tiyaan murit tiyaan moom ab ruq la rek ci ci ci kër gi waaye du kër gi nag mënoo dugg Sénégal te amoo mënoo dugg Touba te amoo visa Sénégal waaw loolu kon moom visa bi nag mooy nga la ilaha illallah kon la ilaha illallah muhammadu rasulullahi jooju sëñ boobu di wax loolu def signe boobu maanaam salaa salaam dénkoon nañu ne wuute leen ak yahud yi ak nasaraan yi ba bañ man leen na xàmmee signe boobu suñ boobu wax kooku moom dëgg yàlla xam naa ne kilifa yi war war nañ war nañ koo ngàgganti yàlla bu bu nga ko gëm yàlla bu ko mbooloo ma gëm loolu lu rëy la moom lu rëy la lu rëy la te loolu aw xàll wu yees la ci ci ci biir murit gi nga xam ne tawxiit lay laal murit gi moom laal na tawxiit ba tey moom te na Sëñ Tuubaa laal na tawxiit ba tey moom waaye bii nag moom daa gën a rëy ndax bii jaxasoo gi nee na ak sëñ ba nee na damay dem église waaw ah nee na it nag andi na posé na question nee na waaw Seydina Isa alayhi salaam ni mel moo gën ci yonent yi ku dul sallallahu alayhi wasallam nee na moo la gën ba noppi ñi ko topp di di dem safara nee na loolu da koy laaj déedéet alisina xalu inaan nasaara ñi nga xam ne dañoo wute woon ne ay yéefar ay ay advance si Seydina Isa alayhi salaam lañ waaye topp ñu jàngaleem ma ñooñu koy du bu bu bëgg ñoom dara ah Seydina Isa ay dongaam mooy ñi ñi topp la mu andi woon ku topp la mu andi woon àjjana nga jëm ndax yàlla ko diggee ku topp nag al ko ñii moom topp ñu ko xanaa kon sëñ boobu kon kon xam naa kon wax na lu rëy lu rëy rëy rëy rëy loo xam ne woowu waar waar woowu bu xasee juddu ci yoon wi mën naa indi yàq gu rëy moom maa ngi maa ngi seetlu rek maa ma maa ngi si seetlu ci télé bi ñuy wax dara naan kat bépp jàngu bépp bépp jàngu bépp jumaa lu fa waaye def am ca yool déedéet Abdoulaye Wade nag moo andi woon loolu maanaam léegi xaw ma lan waxtaan dialogue boobu mu waxoon tax na ba xam naa Wade jàmbaar la waaye loolu ñum te am na ca ndax fii ci Colobane gii ci wetu Colobane gi gii ci Saloum rek booba ba mu ko ba loola jógee am na góor goo xam ne nee ñu daa xaaj ak njabootam jox ñi sëñ diw sangam Mbàkke ñii mu dugaleen ci église ba nee na ne ginnaaw diine ji benn la loolu moom xam naa ñu nag sunu sunu waxtaankat yi moom borom xam-xam yi wala ñi ñi ñu xutba ñoom yooyu duñ ci wax mën naa am da ngay ragal a wax loola ngir nangam xam nga intérêt moom intérêt yi tigi mooy mooy mooy am yàlla intérêt ajjana mooy laxiyal xeewaan dundu dëgg amut fii ajjana la xanaa kenn du ko jaay ajjana jooju xanaa boobu nag di ko jënd fii nag ku dul yàlla yilifu la lu may dala yilife ci Muhammad Rasulullah kon loolu moom lu rëy la lu déggaguma kenn nag wax ci waaye lu rëy rëy rëy lu rëy rëy la moom lu rëy rëy la Sëñ Tuubaa nee na ñooñu si seenu jaamu yàlla maanaam mooy yàlla la murit gi nag murit gi nag moom na ñëpp xam ne nag du ab pàcc ci islaam maanaam murit gi murit gi sax amut suñ bi luy murit amut di luy tiyaan amut di kitaabu sunna képp am sëñ Tuubaa du wax kenn naa ko saxal ci murit gi lu luy murit képp ku newul ci islaam da nga yàlla ko waaw ku dul yàlla ab jaam nga ku dul yàlla moomu dara ku dul yàlla loo am dara ko sarax te sëñ na ko nangu kon kay sëñ bi kon kay kon kay murit amut kon di tiyaan amut xaadir amut li am mooy lislaam am si si si si al imnu maa ko dégg ci mujj gi xam naa mu naan waaw sunna rek am li li fi nekk nii lépp mu mag ñe ko ko ci dolli rek waaw wax dëgg sëñ bi amut de kon kon laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah sëñ boobu noonu ko def signe yooyu mu ngi def noonu noonu ko nasaraan yi di def di wane ne trinité day jë daga nut ci noonu daga nut kenn du ko def moom loolu dafa xaraam église ba kañ nga fay sañ a dem bu sa mbokkum nasaraan demoon wala sa wala sa sa bàyyi la ju doon nasaraan faatu wala sa mbokk wala sa xarit sa àndandoo mën nga ko gunge ba ci église ba waaye doo ko ñaanal amoon na fi nag ca ginnaaw li ginnaaw kilifa diine goo xam ne moom dem na ba ca ba candum alko ba candum alko mu dem ca église ba tiim ko di ko ñaal ni waliyu la xam nga seen nangam ni waliyu la oh dégguma kenn wax ci dara de waliyu la waliyu moom du nekk ku ku dut koo xam ne dangaa tënku ci diine yàlla ja ja xew booba diine ja xew inda diina inda laahil islaam wa man yabtaxi xayra islaami diinan falan yuqbala minhu loolu ah il alxar ko wax de candum lu mën a def ci lu baax falan yuqbala minhu waxu fil axirati yàlla ni yàlla wax de minal xaasiriin minal xaasiriin mooy coono bi bépp maali faro la sero lay doon loolu sëñ bi loolu loolu loolu maanaam nga xam ne kon kat noonu diine ji lañ am diine amuñu ak murit ak tiyaan loolu yëpp amuñu moom du dara loolu ay méthode ay ay méthodologie la ay taraiq la yoo xam ne ngir lu gën a gaaw ñu ngi nii di magal si sonn ci lu nekk yaakaar ne xaritub yàlla ngoog suñ bàmba koo ko liggéeyal yàlla gërëm la loolu képp la de yàlla waxuñu ko de yàlla waxuñu ko moom léegi nag noonu ginnaaw noonu dañoo ragal yàlla ñu ne ah kon de bay boobu fu ñu ko mën a xeñtoo rek ci loo xam ne dëppoo nag sunna nag temps si mu foofu sunna di kon foofu ko foofu kon awlaf la woon ci ci woo xam ne mat naa ber loolu ber ko waaw ndax ndax ndax lu ma yitteel la ne ndax ndax mu àgg ci sëñ ba ba mu jàngataat jëf ja waaw loolu moom loolu moom lu mat a jàngat la minka taraifun wa faraidu ya rabbi suqli sarmadan fawqa alladi arju wa inni fi mahalli qaidu ya xayra mugnin astagiidu bifadlihi ya man lahu minni hunaka masajidu li ajlan nasran azizan hahuna hatta yufariqani kafulun jahidu wa adim salataka bisalaami